ñu mbokk jullit yëpp fu ñu mënta nag ci Sénégal ak ci bitim réew euh, di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi di bësu tëbaski muy bés boo xam ne bu am solo la euh, ci jullit ñi mu nekk sha'ira min sha'airil islam mu nekk benn symbole ci symbole l'islam yi euh, feetu tëbaski li ci gën a siiw mooy moom mooy lendemain Arafa donte nag am na wuute ci boroom xam-xam yi ndax dañuy wax ne arafa euh, ñaari xaaj la dafa am makaan ak zamaan ñoo xam ne dañu ko tuddee euh, am na jamono am na place jamono ji mooy neuvième jour ci weeru weer wi ñu nekk di weeru tabaski euh, place bi mooy place bañ koy defee ci arafa donte boroom xam-xam yi wute nañ ci ci ñoo xam ne dañoo nekk ci yeneen contrée Euh, seentu weer njëkk a gis par exemple fi ñuy defee arafat wala fi ñuy defee arafat njëkk leen gis considéré wu ñu gisin yooyu ñoom kañ mooy nekk seen arafat ñenn ñi ne seen arafat mooy ñoom bi ñu gisee weer bi daal neuvième jour si ñoom moom mooy arafat waaye ñun li ñu jàng daal si yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy arafat neuvième jour bi la ci lendemain bi moom mooy tabaski wuute yi la nag dafa nekk ci wuute yoo xam ne ci li ñu tuddee euh, waxdatul matali wala ixtilaaful matali ji euh, considérer ñoo xam ne ñoom ñoo bokk sow jant ak bokkuñu sow jant euh, bu fekkente ne bakkan dugg ci euh, wuute yooyu moom amul benn problème incha allah mais bu dee bakkan dugg na ci moom yenn saa dafay grave te jàpp naa ne yenn saa bakkan dina ci dugg ndax Sénégal Mauritanie Gambie Côte d'Ivoire Togo ñoom ñoo bokk benn place fii jant bi di sowee donc mënuñoo wuute li nga xamante ne moom mooy lu mel ni tabaski kon bu ñu demee ba ñu wuute rek kon yaa problème. ci kaw loolu ce que yaakaar nga ne waxtaan war a am ba ñëpp mën a julleendoo ci benn bés. loolu mooy yoon waxtaan moo war a am du wax ne dinañ waxtaan ba dem ba dëppoo bay julleendoo benn bés mais bu ñu waxtaanee ba yenn divergence yi ñu lever ko bu ñu jullee tey ñeneen julli suba sax te ñu teg ko ci xam-xam yàlla dina nangul ñëpp. waaye waxtaan nag moom moo jiitu te buñ ko defee dinañ trouver ay solution li ñu mën a jàpp lu gën a rëy ci xutba bi mooy insister ci li ñuy tuddee tawxiid maanaam wéetal yàlla ndaw tawxiid moom mooy sookul lislaam moom mooy baasu lislaam ndax li ñuy célébrer tey di ko feete boo xoolee yont yàlla ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi mu koy def tawxiid la fees dell ndax yàlla moo ko sant mu ne dina def lan la ko sant liil sa doom mu ñëw wax ko doom ji doom ji nangu kon ñuy wéetal borom bi subhaanahu wa taala ci loolu ba yàlla weccee doom ji ak benn kuuy bu rëy beneen bi boo xoolee mbooleemu acte yi ñuy def ci aj bi te aj bi tey mooy lu ñu tuddee yawmul xajjil akbar mooy bos bi nga xamante ne moom mooy bésu tabaski lépp ci wéetal yàlla la labbayka allahumma labbayka ba bi ñuy jeexee taxaw bu ñuy taxaw araf ak lépp wéetal yàlla la comme kon nag dafa nekkoon yoon ñu insisté ci li nga xamante ne moom mooy tawxid boobu te julli ñu war cee bàyyi xel nag yar seen bopp ba loo xam ne dafa nar a gàkkal tawxid ñu moytu ko ci bokkaale yàlla bëri na ay façon nag ci wàllu njibar ak leneen loo xam ne festante la ci si réew mi ñu war kaa mën moytu donc loolu mooy tomb bi gën a fës ci li nga xamante ne moom mooy xutba bi ba pare nag ñu laal nag li nga xamante ne moom mooy lenn ci sookul société bi lu mel ni jeunes yi nga xam ne l'islam bi muy wootee ñoom ñoo ko dooleel kon l'islam soxla na leen kon ñoom nañuy gëstu li nga xamante ne moom mooy l'islam xam ne li leen fi indi mooy jaamu yàlla naka noonu it jigéen nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala bokk na ci rôle bi gën a rëy bi jigéen war a def moom mooy yar bi nga xamante ne moom la ñu war a yar xale yi kon ñetti tomb yooyu ak yeneen moo gën a fës ci li nga xamante ne moom mooy suñu xutba loolu c'est à l'image de la société bu ñu waxee élèves yi rek dañu leen tooñ ndax élèves yi daa am fu ñu jógee yar bi moom moo manqué yar bi nag buñ ko tàmbali woon ci kër yi ci mbedd mi ci école yi yaakaar naa élèves yi du ñu am euh, li nga xamante ne moom mooy comportement yu mel noonu moo tax nag loolu responsabilité ñëpp la tàmbale ko ci état gouvernement ci ñëpp ci parents yi ñëpp ñu war a dellu képp koo xam ne rôle bi nga xamante ne war nga ko def nga dellu ci ñun bi ñu nekk xale ñu ngi doon fàttali ay émission yoo xam ne daana am ci rajo yi yoo xam ne daanañ yar nit ñi euh, émission yoo xam ne daanañ ci waxtaan ak baykat yi émission yoo xam ne daanañ ci waxtaan ak sàmm yi loolu amatul léegi loolu fecc ak woy rek daanaka moom moo am ci télé yooyu donk nit ñi adduna bi nu muy doxee faw ñu ànd ak adduna bi bu fekkente ne yaruñu leen kon yar bi moom la ñu war a delloo ci ci li nga xamante ne moom la ñu. gis nañ ne ñu ngi ci mbas euh, mosquée yu bari ubbi wuñ ko ngir julli. Mhm. am na ñu am depuis ba mu tàmbalee ba léegi dañu tëj seeni moske mhm. euh, tey bu ñu tollee foofu ci jamono lan moo war nekk taxawaayu jullit li war a nekk taxawaayu jullit bu mbas amee mooy ni koy lislaam jàngale en tant que jullit. loolu waxoon nañ ko bi mbas mi tàmbalee waxoon nañ ko sax bi fi Ebola di am ci jamono am ne mbas bu amee fenn comme ni ngeen ko gisee ñenn ñi da koy def te pourtant ñenn ñi dañ koy décrier naan ay jamono lu yàgg la mooy ne mbas bu amee fenn fi mu am ñooñu bañ a génn fi fi nga xamante ne àggagu fa ñooñu bañ a ñëw fi mu am yaakaar naa ne jamono ja muy tàmbali ci 2019 fële ca Chine yu mel noonu donte duñu ay jullit waaye buñ ko teeloon a respecté amaan du law ñi mu jot ñu faj leen ñu wér boobaa mu mu jeex loolu bokk na ci njàngale yu mel noonu bu demee ba am nag li war autorité yi ak mboole mu ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee réew yi moom ñu fexe ba góor góorgóorlu ba jële ko fi jële ko fi nag li ci jiitu mooy am confiance ci yàlla ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jële ko fi waaye nag jàpp ci sabab yi sabab yi nag moom mooy lépp loo xam ne lu war la pour pour mu jóge fi ñu fexe ba mu jóge fii lu mel ni ñàkku yeeg donte nit ñi ñu ngi ko ci ñu ngi ciy wax ay mbir yu bëree bëri waaye war nañu mën a am confiance si suñuy autorité rawatina ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy médecins yi comme ñoom homologué homologué lañ li nga xamante ne moom mooy vaccin yi ne lu baax la lu ñu war a def la au moins ñu sabablu lu si des nag ñu bàyyi ko loxo borom bi subhaanahu wa taala léegi bu fekkente ne ci wàllu jàkk yi nag loolu dama jàpp ne julli ñu dañoo tasaaroo julli yi dañoo tasaaroo nekkuñu benn te loolu lu ñu war a delloo delloo si la bu fekkente ne julli ñi benn baat la ñuy waxee ñu jël benn décision soit ñuy tëjandoo jàkk yëpp wala ñu ubbindoo jàkk yëpp wala ñu xool li ñuy def waaye anarchie bi nga xamante ne moom moo am ñiy julli ñiy ñàkk julli dafay wane division musulman yi te c'est regrettable non